La maison des grands moutons ci émission bu am solo Découverte de nañu nak ci yi nga ni lañ journée porte ouverte yu Galoya mu nekk bés yu am solo yu ci 26 ba 29 octobre au musée des civilisations noires bu Dakar. Aboukan le grand berger le sang ne dit que la vérité la passion sans vanité une ambition affichée le bélier la ñu dikkaat ak yéen nag ci jaar ak ki nga Omar Kane ñu gën koo miinee ci tur bi di président FENAFO la fédération nationale des acteurs de la filière ovine d'Ingitel bergerie Galoya Fofé ca mbaaw Abou Kane bokunen di kenn ci ñi nga xamanteni nañ ci ñi am ci yarum ci Sénégal mu nekk passion di manam mugel go xamanteni yag na ko am ci yar ci jamono go xamanteni nak mu ngi doon sam li nga xamni modi ay xar yu bu mu ba mu ngi ci gestion comptable mu di gestionnaire comptable boo xamante ni ku xare xarañuñ la ci li muy def waaye dafa mu di bàyyi boobu liggéey yépp nag ngir rekk dëgmal li nga xamante ni moo di wàllu yar ci atum 1999 ci la taxawal lii di bergerie Galoya ngir gën a mën a wëyal xam-xamam ci wàllu yar rawatina nag xar yi nga xam ni moo di laadum foofee ca Sicap Mbao tur bi nag nga xamante ni moom la jox géttam gile ñu koy tànn nag defa ko tànneef koo xamante ni rekk ci hasard la ko teg ndax lépp rek da ko delloowaat ci cosaanam di fa mu bàyyi ko foofee ca Fuuta di Galoya di ab dëkk bu nekk foofee ca Fuuta Galoya nag mu ngi nekk ci département bu podoor digganteem ak Ndakaaru toll ci juróom benn téeméer ci ay kilomètres bés yi nag ñu duppee journée porte ouverte bu bergerie Galoya dafay fàttali rek li nga xam ni moo di jaar-jaar ak taxawaayu ki nga xam ni ci secteur bi nga xamante ni moo ñeel yar laadum fii ci Sénégal bés niñ ko junjee léegi mu ngi am 26 jàpp 29 octobre 2023 ci musée des civilisations noires. Le la mère des champions l'homme d'exception. Aboukan, éleveur des champions. loolee nag amoon ci teewaayu ki nga xam ni moo di Daouda Dia di jëwriñ du yes gi ñu fal ngir mu yore wàllum càmm ji fii ci Sénégal moom nag daanaka foofe sax la defee la maison des grands bi mu ñëwee sax nag jot na nemmeeku li nga xam ni moo di exposition bu abukan bi nga xam ni dalal na ko ci bés bile. sax moom moo tijji lépp lu soxal yëngute teyi wara am ci bi lé ci teewaayu ñëpp ñi nga xamante ñom ñoy ré yore wàllum fi ci Sénégal na nak ñi yëngatu ci chamum laadum. Monsieur le directeur de la bergerie Galoya, président de la Fédération nationale des acteurs de la filière ovine, Mesdames, Messieurs les présidents des associations d'éleveurs de l'ADOM, Mesdames, Messieurs chers invités, en vos rangs, et qualités, mesdames, messieurs, chers éleveurs. Mesdames, messieurs, je voudrais profiter cette tribune pour inviter tous les éleveurs du Ladoum à mettre à profit ces grandes, performances génétiques découvertes chez le Ladoum pour engager ensemble une offensive de mise à l'échelle en vue d'atteindre l'objectif de l'autosuffisance en bouton de Tabaski. Pour relever ces défis, je puis vous assurer de la volonté et l'engagement de son Excellence, Monsieur le Président de la République et son gouvernement pour, vous y accompagner. Je ne saurais clore mon propos sans adresser mes vives félicitations et mes, encouragements à M. Elage Oumar Khan, lui connu le nom toutes mes félicitations pour son engagement constant en faveur du développement de la filière ovine, particulièrement de la race Ladoum, dont la plupart des pédigrés mènent à la bergerie Galoya. C'est une véritable fierté. En invitant, tous les, en invitant tous les Sénégalais à venir nombreux visiter cette grande exposition qu'on vient de voir autour de l'histoire du Ladoum, je déclare ouverte les journées portes ouvertes de la bergerie Galoya. Je vous remercie votre je suis très fière aujourd'hui, vraiment, de participer à ça. C'est la première fois que je participe, que je participe à ça. Et euh, quand on parle de galère, c'est dans mon sang, je le sens. Et quand, euh, quand je m'as envoyé image de galère, euh, j'ai pleuré. Parce que je pense que c'est mon grand-père qui est ça, que je parle Et ça m'a donné une fierté. Et euh, je pense que tu as fait beaucoup euh, pour Galia. Et tu as fait beaucoup aussi pour le Sénégal. On doit te remercier. Moi, je te remercie déjà pour Galoya et pour le Sénégal. Tu es un exemple pour les jeunes. Et les, euh, jeunes doivent, doivent regarder ce que tu as fait et se dire que tu peux réussir chez nous au Sénégal. Pour moi, ce que je fais, moi je suis en France et je suis bien payée. Mais je préfère peu au Sénégal. Quand je venais, mon patron m'a dit que tu vas rien ne va passer, n'y a rien en Afrique. Je lui ai montré que si on peut faire rien des choses en Afrique pour réussir. Et bien merci. Comme, moi vraiment, Galoya deseetul de au contraire maintenant maa le a def lu bëri Galoya je pense que yooyu la un peu en tout cas jërëjëf yow Alla yar na dara yàlla nga yegg fi nga bëgg a yegg yàlla nga ko yàlla yóbbu ñu ñoom ñu fekke ko en tout cas merci beaucoup jërë ngeen jëf. c' est l' occasion pour nous association organisation de vous remercier pour ce beau travail que tu as fait aujourd'hui des beaucoup de jeunes se sont enrichis et en cette activité ils ont vraiment ils se sont réalisés ils ont construit, ils ont eu des maisons ah, grâce à cet élevage que tu as bien voulu en fait initier et mettre les moyens de faire longtemps. Moi je dis que tu étais en fait un visionnaire. Tu avais vu loin pendant que beaucoup de gens vraiment ne croyaient pas trop à ce que tu es en train de faire. C'est l'occasion vraiment de vous remercier encore une fois et de cette belle initiative, effectivement il y a des gens qui écrivent leur mémoire après. Mais aujourd'hui, tu es en partager ton expérience avec nous. Mais encore une fois, merci beaucoup. Nous vous remercions. Le monde de l'élevage est content vraiment de cette initiative. Merci beaucoup. Je ne saurais terminer sans m'incliner pieusement devant la mémoire de ma chère mère, Aïssata Madia Demba Hamdou Defa, euh, mon inspiratrice.

donc euh, euh, euh, c'est l'un des meilleurs moments que j'ai eu à vivre parce que comme Nico élevage c'est ma vie en quelque sorte donc journée yi inspiré ma suis Galoya ça fait plus de 25 ans bergerie Galoya référence la bergerie Galoya ñu bari dañ ci xol nak lañu ñu modèle la ñu bari éleveur yu bari dañuy xol nak lañu joxé lek ñu topandoko wala ñu top ci nak lañu croiser ak lenen ak lenen lenen ñu aussi gis nañu dans la vie de l'élevage depuis 2009 on fait des concours et il y a beaucoup euh, de la majorité des moutons yu gagné soit pour lañu joggé directement ou indirectement et élevage nous, nu mu am nañ ci expérience euh, boo xam ni war nañ ko partager te am na historique bi fi nekk bu nga xam ni waruñu bàyyi mu euh, res donc euh, ma ne may réfléchir lan laa mën a def pour vraiment partager cette expérience lan laa mën a def pour faire vivre cette expérience cette histoire ma xalaat ma ne ah il faut des journées portes ouvertes bergerie Galoya journée yi nga xam ni dinaa si dekkil euh, champion yu fi jaar yépp loolu tax ma def tableau yi ma ma ragale noonu loolu tax ma choisir endroit bi c'est cet aspect artistique moo tax ma def un échantillonnage xool quelques xar rek ak nag li may def ma indi ko fii ko ma aussi comme dañuy partager suñu expérience dinañu organiser ay panel organiser panel sur la bonne conduite de l'élevage sur la santé de l'animal organiser panel sur les cultures fourragères organiser panel sur euh, plein de choses yi nga xam ni non seulement suñu mbokk vétérinaires yi suñu euh, euh scientifique yi dinañ ñëw partager ak ñun euh, seen expérience nous ak seen xam-xam mais aussi ñu on va partager le modèle Galoya su am na ñu Galaya ba Galoya village nekk fii suñu mbokk raneeru yi gis ngeen euh, kër ardo bi ñu fi def pour sargal suñu système bi euh Sow ardo

la maison des grands moutons, dans l'Oyak. La maison des grands moutons, dans l'Oyak. La maison des grands moutons, dans l'Oyak. Aboukan, le grand. xalaat mbégte bu rëy rëy mbégte bu rëy rëy euh, laa am si ouverture journée yi nga xam c'est une première. Euh, c'était un pari vraiment risqué, c'était pas évident. Euh, mais a la vraiment, euh, ça s'est passé de la meilleure des manières euh, et d'une manière vraiment. donc exposition programme exposition animaux exposition tableau. Euh, et l'exposition des entreprises. Et ça a été vraiment très fortement apprécié par le monde de l'élevage. Et cerise sur le gâteau, le ministre qui vient de prendre sa euh, fonction, nous def première sortie de ko euh, journée Et les éleveurs sont venus en masse la famille est venue en masse vraiment toute la famille de l'élevage était là aujourd'hui donc il a le xam ni ma bëggee franchement euh, mettez vous am allah bu baax bu baax. demain, on va dérouler le programme, on va continuer à dérouler le programme, il y aura des visites, on va continuer le vernissage, on va continuer l'exposition des sujets. De nous continuer aussi ces panels. Demain, il y a un panel sur euh, euh, la conduite de l'élevage, sur la santé animale, donc sur l'alimentation. Nous avons l'ordre des vétérinaires du Sénégal, nous avons animé. Euh, le grand nutritionniste euh, docteur Sen ah, euh, moo koy modéré donc euh, et, et avec comme invité d'honneur euh, la dame et ses membres donc loolu mooy programme demain dama bi fofu amna ay jotaay yu am am solo ci sotante xalaat di ay panel yo xamni ñu ngi ko def ci yarum ladum ci panel bobu nak kep kuy yarkat di vétérinaire mba ñi nga xamni ñoy ñooy yëngatu ci walu minoterie ak ñeneen ñoo xamante ni ay acteur lañu joxe nañu seen gis-gis ak seen xalaat ci liñ doon waxtaanee bokk na ci lii di wàllum xont gi wérgu yaramu jur gi njëgu alimang bi nga xamante ni dafay cher loolu léeg-léeg li waral itam vétérinaire yi léeg-léeg dañuy yéex ak si loolu saa buñ leen yittewoo ngir ñu saytu jur gi loolu yépp nag di ay ponk yoo xam ni ñoom ñilee di yarkat yi jot nañ ci waxtaan thème bi nga xam ne fi ni tey war a nekk xam-xam boo xam ne bu leer nañ la ñu war ko mën a jëfe mun ñu ko jëfe nag te spécialiste yi waxuñu ku mel ni docteur Konaté ku mel ni Mouhamed nekk Grand Moulin ki nekk NMA dañuy jox kàddu gi rek euh, docteur Konaté mu tàmbali waxtaan bi ñu leen di ñaan en tant que éleveur ngeen bàyyi xel waxtaan éleveur moom ba leen waxul euh, ak ay sees waxul leen auteur seen xel du fi nekk mais dañu bëgg tey jii ngeen bàyyi ngeen jox ñu nopp yi lan mooy euh, nutrition animale nan la ñuy compter jur lan la ñuy ci thème ñu teg lan mooy boobaa nañu mën am question yu bëri yu mën a posé incha allah docteur yooyu mu ngi ci lii ak lii la soxla lan la soxla énergie la soxla lan la soxla euh, protéine la soxla lan la soxla calcium phosphore yooyu nga fexe ba mu dajaloo si benn aliment bu si nekk nag ak dose bi nga si war a def parce que énergie bi am na quantité bu mu warul passé am na quantité boo xam ne war na fa egg tuuti euh, protéine bi naka noonu calcium bi naka noonu phosphore bi naka noonu. mais lolu ñom nutritionniste yi ñoo ko def ñoo calculer donc lolu am nay gamme produit yi ñu def yi nga xamni dafa équilibré parce que yooyu bu ci bu si nekk respecté nañu pourcentage bi donc lolu dafa am solo lolu moy bu aliment bu ñu naan équilibré na mooy ni ñu né voilà énergie waru passé 40 pour nga def 40 pour cent yem foofu protéine par exemple waru passé 13 pour cent nga yem 13 ak yenen ak yenen mais nous euh, avons ñu énergie qui énergie warul 40 Nous avons une énergie par exemple 60 Je cent da ngay rey sa xar moo fan je donne un exemple par exemple Nous avons ñu euh, super laadum euh, Il y a la quantité maximale d'énergie vous savez que moi nekk 40 donc 40 pour cent ci donc 40 on va mais élevé vie, c'est ñu fi toog fii ñu lan la ñuy def jënd suukar laa bi jëlaat mboq encore gar ko duga duga defaat ko sottiwaat ko si da ngeen ko def wala du doo ko def wax leen da ngeen koy def n'est-ce pas parce que man dama siy teg suma bët donc loolu c'est dangereux et pourtant ñu di les gens passent leur temps c'est sûr que docteur Niang ak ñeneen ils passent leur temps à vous dire non baaxul mais éleveur balaa moo kontaan gis xar bi am am bon point stockage aliments yi aussi bëgg naa see insister bu baax parce que dafa am aliments yi technique yi comme ay ñii di liggéey ak yeneen aliments yu njëkk yi bokkuñu buñ bokk durée de conservation deuxièmement aussi da ngay ñëw da ngay ñëw ci benn magasin fekk fa ni ñu denc affaire bi ak tàngoor bi du baax aliment bu ñu ne la que 3 war a am peut-être à 2 sax mën na commencé indi problème mais aussi comme ni ko docteur waxee aussi ab wax léegi muy aussi mélange bi parce que man damay am ni léegi am nañu naan man galo yaa nga bokk actionnaire la am ñoom dañoo foog dañoo man ci ministère yi man actionnaire laa fi <laughs> te yàlla xam nga ni mosuma kenn mosuma ci may aliment. que nous ma see dafa dara liggéey laa ci seq mais de toute façon liggéey scientifique laay def liggéey bu mag laay def ci mel chaque fois dañuy accuser ben usine ci ben produit fekk ni yow ci ñoom la la dernière fois am na boo xam man FERA fu ñu ko en 2019 mille xama dix neuf xama deux mille huit bi fi ba FERA bi ñuy wax l'historique la ñu ne que tel aliment la ba affaire bi law ba law je pense que ma def si ma def fa benn benn liggéey scientifique bu ma def parce que il fallait ma dem FENAFO défendre loo xam ni Euh, kenn mu seete verre bi nan laa def sama cabinet laa wax di gaañi xar bu ñëw nañ ma jël numéro téléphone fu mu dëkk ak lan lay bu ñëwee ñu naan maa ngi xonte aliment siriment ñu maa ngi xonte super laadum ñu maa ngi xonte euh, super ténor laadum extra ñu maa ngi xonte sax euh, ay reste de cuisine comme comme dara caaro ay reste de cuisine lañu ñu xonte bi ñëwee loolu laa rek ak bi ma ñëwee kanaa fu ñu toog aboo ngi toog docteur Diallo ngi toog ak Moussa Fall ngi toog bi ñëwee ma ne la nag léegi nag preuve yaa ngi nii bu la neexee numéro téléphone yi ak seen kër yaa ngi ku nekk ak la nga fonte ak sa morom bokk am na ñoo xam sa fonte wuñu bu ñu ni aliment ba gars yi def ba fenaa bi ma jël su ko weddi da nga yem par rapport ak tey bi ñu nekkee contexte mondial bi xam nañ ne aliment bi 40 pour cent bi énergie la mais est-ce xool alternative en dehors lu mu wax sànq mais tey il mi am na équivalence en principe pour jox énergie bi est-ce que jëm leen gëstu lan la ak loolu est-ce que disponible ou pas ci réew je pense que c'est important de le faire. Euh, développement bi ñu am léegi am ay bay kilos donc ce que veut dire vous avez joué un rôle très pondérant ci performance mais vous faites que am performance une mel noonu te sécuriser wuñu ko aussi day nekk problème parce qu'il y a un assainissement à faire yéen it ci seen milieu parce que am na leen bu fekkee dajalee jël ñu tey jii ñu toog di waxtaan mais am na ñeneen ñox xam ne bokkuñu ci yéen loo leen gas ñoom ñu suul ko mooy ñi nga xam ne dañu tuddee ay vétérinaire te nekkuñu ay vétérinaire loolu war na laaj assainissement loolu war ngeen ko régler beneen bi aussi mooy la disponibilité des vétérinaires des fois dañuy am problème boo gisee problème yi am ci élevage loolu day nekk problème parce que da ngay soxla vétérinaire doo am accessibilité bi doo am disponibilité bi léegi ki nekk à côté ki nga xam ne moom loolu du rôle moo boo ñëw remplacer ko ñëw indi la ay giraawaari si sa liggéey. trois heures du matin dañ may yee ci ay cas muy xar buy am doom wala xar bu am feebar yeneen situation yu ma jóg sama lal solu dem taxawu sama mbokk éleveur bi alors que man waatuma de éleveur dong laa vétérinaire bi nag moom bu muy bare dafa waat ci digganteem yàlla. seen sagante boobu dañ ci sonn nag lii dañ koy jooyantu ngeen baal bi dañ koy jooyantu dañ koy jooyantu parce que daf dañ ci sonn quoi mbaa ne du fekk coono boromam voilà. merci beaucoup. voilà éleveurs yi. merci vétérinaire yi non coach pareegu ma may ma ma pare dinaa teg micro lii lu sérieux la élevage laa du nekkatul caaxaan caaxaan taxul ay kilifa ñëw toog fii ay millions ci ne. vétérinaire yi wax nañu lan mooy seen problème ndax ay commerçant ngeen wala ay vétérinaire ngeen loolu damaa bëgg ngeen tàkkal ñu ko et vétérinaire bii ñëw sa kër indi na la benn flacon cinq mille mu la bii cinq mille lay jar bii huit mille suba defal ko cinq cinq ginnaaw suba defal ko trois mu won la ginnaaw dem suba boo ko wooyee xaar bi bu kaa bi génnee avant critique wallahi azim doo ko jot wala mu ne la maa ngi ñëw su suba nga koy gis barke dem am boo xam ne dafa teg tànkam sama ko xar baa ngi ni léegi nañ waxante dëgg rek am na problème yoo xam ne il fallait ñu jaar ci digg bi vétérinaire yi lor nañ éleveur laa dumi kon joyantu leen ko voilà merci dëgg la fi ngeen nekk da ngeen koy fay dañ leen di fay seen xam-xam dañuy fay ni fay liggéey mais ñun ñi nga xamante ne ñooy xont war nañu xam saako bu nekk li ci nekk yépp soixante-dix pour cent protéines lipide trente wala lii quinze mu mais tey fii benn éleveur mun la toog mu ne la super labour bi lii moo ci nekk lii moo ci nekk lee moo ci nekk loolu moo tax tey ñu ci yokk pain au di ci yokkaat céréales di ci yokkaat leneen ak leneen na mu meloon melatu dëgg rek mooy dëgg du wax nag def nañu lii nii la meloon def nañu leen nee la meloon mais maa lay yóbbante ci ñi nga xamante ni ñoo koy defar nee leen na mu meloon melatu ko te fuñ ma woo dinaa leen fa wuyu jàmbaar ngeen nag waaye na affaire bi nekk li nga xamante ni mooy kajo ah Ya koy defal bon nag seetaatal li ngay defal bu baax a baax parce que dëgg dëgg dëgg dëgg li tax gars di ci li nga xamante ni mooy bi di jëlaat mburu di ko yokk ak blé mooy wax dëgg yàlla xam naa ni tàngooru Sénégal jàpp na wala la ñuy indi mu ciy xoolaat mooy loolu loolu daal lañ leen di ñaan di wax nag képp ku fi toog loo yóotu yàlla nga ko jot yàlla ñu yàlla musal yàlla ñu yàlla muccal yàlla ñu yàlla aar sunu mag ñii nag lu ñu dund mu doon poudre rek nga ciy gis ëndax day doon poudre nga jox ko xar yi benn saa yi ko nangoo lekk dañ ko fay bàyyi man samay xar dañ koy def ba tàyyi di ko def muy des ci majoire bi bu ci biir ci laa ko bàyyi jët xanor laa lumbi léegi man moom lay xontee te lu ma ci sotti dañ koy lekk dafa des kon nag war nañ xoolaat tamit ripaas bi tamit ferñeent yi ñu ciy def war nañ ko xam xam nga loolu te am na solo loolu waaw waaw tamit ci ñu jàppale bu baax tamit ci jur gi parce que man sama mbote sama mbote yi euh, sama famille bi ñu ëmbee même bu ñu lekkee super bi mbote yi bu ñu juddoo même pas trois jours dañuy commencé daanu du ma doon xam lan la nag. maanaam ñun éleveurs yi benn jafe-jafe la ñu am sànq bàcc yi laal na boobu mooy point bu am solo la da ngay jënd sa xar ay centaine de millions am problème mu surtout ñun éleveurs yi nga xam ne éleveurs yu ndaw lañ loolu moom éleveurs yi sànq ba léegi ñu may message ne fi bàcc laal. fofu képp lañu wara taxaw benen bi tamit moy ci wàllu ripaasu laadum bi ferñeent ndax ñun liñ ci def danger la wala du danger ndax ñun sama classe bi dañuy jël muru jël super laadum jël mbokk manam mélange rek ene rek ak pain au lait waaw loolu nag maa ngi koy euh, wax comme suma waji mu laaj ñu ndax muru bi ak mbokk bi ak super laadum bi ndax danger la ci ñun ñi nga xamanteni ñun éleveur yi ndaw lañ amuñu yenn moyens yi di ko def wala. war ngeen ñu wax nan la ñuy suppléer xar bu juddoo ak su fekkee soxla na ko ak yan phase dañ ko war a suppléer war ko war a accompagne comme ni ngeen ñuy waxee xar bii kat périod bii war nañ ko déparasiter ainsi de suite war nañ xam xar bii ban période lañ ko war a defal AD3 ban période lañ ko war a defal fer ban période lañ ko war a defal calcium et li ma dégg ngeen wax ko ci aliment yëpp dafa benn élément boo xam ne dégguma ko ci ci benn yoon que ni yi am na ko muy magnésium. mooy suñu problème. li ñu mën a def rek mooy gën a sensibiliser vétérinaires itam euh, parce que éleveur je pense que dafa am benn relation particulière ak vétérinaire doo xaar ba am jàngoro wala maladie nga doog a wax war na am la prévention mooy vétérinaire bi ñëw chaque semaine chaque mois di am une traçabilité xam xar bi baax xar bi euh, traité nag yaa un an donc lii du ma moom xam naa parce loolu day tax faj bi du nekk lambatu. donc donc day am un dossier médical boo xam ne dina permettre euh, vétérinaire bi mën a am un suivi particulier et un suivi à la carte de l'élevage. dëgg si yàlla donc dañ si am contente rek am nañ si contente baax baax suñu teewaay bi donc ñoo ngi ñaan ñoo ngi ñaan donc président Abou chaque at ñu ngi siy jéem a di sama taxawaay bi chaque at muy gën di am waaw nekk na loo xam ne ñu ko woon xam dañ ko doon dañ ko doon gis Europe rek te soo xool li la ñuy gis foire Versailles ak yeneen foire yi te peut être amaana mënuñu faa dem donc mel nañu occasion ñu ñew mu gën yëkëti élevage ben ñaar bi encore am na ay panel intéressant ci ndeg yo xamné ñoo ngi suivre di ci gis suñu bopp donc lu melni dem démb ñoo naa fi ñu wax ci nutrition animale donc ñun comme ñu ñëpp ay éleveur lañ donc yoon la ñuy xam baax ba nak la mëna yéré suñu xari comme bo alimentaire yi ñu démé parce que xol ñu ñëpp ñu doon yoree dafa dess nek yaram professionnel parce que ñi jël fi suñu mbokk jël leneen def propre gaam di jox xari donc dem am na ñoo xam ne loolu moo nekkoon seen liggéey donc wax dëgg si yàlla corrigé nañu baax baax ni ñu yaree kër ga dañ wax naka la ñu war a yaree ak naka naka la ñu war a def te wax dëgg si yàlla jàng nañ ko amal nañ solo donc ñoo ngi jógee ba mbaaw sori na mais chaque jour ñoo ngi def effort ñëwaat parce que tey xool na ñu intéressant na amal nañu njariñ surtout ñuy wax côté financement donc ñu dañoo nekk ay ndaw donc am suñu gëm-gëm bu ñu am si dëkk seen toog liggéey mais fa moyen bi du demee noonu donc mu ñoo xam fa la ñu war mën demee pour jël ay ay financement donc mais tey am nañu occasion boo ñu ak ay kàngam yoo xam ne expliqué nañ naka la ñu war a mën a gérer suñu bergerie yi ba gën ko professionnaliser wu jëm ko formaliser dem utiliser ay financement te xamal nañu encore képp ku fa am projet donc dinañ si jàppale dinañ la dégg nañ ko dinañ xam lu ñu si war dinañ ko jéem def te incha allah yaakaar naa am nañ occasion xam ne jël dina gën a yombal suñu liggéey baax a baax. waaw panel yi am na solo trop. parce que wax nañ ci côté santé animale nga xam ne tey euh, docteur vétérinaire yi dañuy ñëw euh, waxtaan ci wàllum nan la ñuy xonte xar yi ak euh, entretien xar yi xam nga loolu dafa am solo parce que bëri na ñoo xam ne tey ñi ngi yar xar peut-être am na yenn yoon daf leen échappé mais panel yooyu dina tax ñoom ñu xam nan la ñuy yoree seen i jur. beneen bi tamit gis naa ay partenaires yoo xam ne ay microfinance ak ay banques yu fi ñëw. Euh, def ay exposé wane ni éleveurs yi nan la ñuy def pour am accès si ay financement yooyu yëpp tamit euh, dafa am solo voilà. bi moom vraiment jëlee naa fa xam-xam surtout ci wàllu li nga xamante moo nekkoon sujet bi muy alimentation bi alimentation bi vraiment ni ko docteur vétérinaire yi expliqué vraiment. c'est clair té yakarna né ne képp ko xamanténé démon nga fa bo démé war nga ko mëna jëfé té gëm na ku ko jëfé di nga ci gis ay résultats itam. déglu nañ laaj yi déglu nañ aussi tontu yi donc je pense que am nañ d'une manière très très très explicative euh, yenn ñaxtu éleveurs yi donc diverses questions ont été soulignées li ci melni qualité euh, jur gi également euh, production manam la quantité de la production également wax disponibilité production mais je pense que chaque question a été répondue à ce que les éleveurs sont satisfaits, et bien, bien évidemment des réponses qui ont été apportées. Je suis dañu parce que je suis doon xaar moom parce que comme ni dit, une euh, journée yi bokk na si partage expérience euh, à travers les panels euh, donc nous avons un système discuter système thème alimentation euh, donc, euh, avec euh, le nutritionniste de NMA, le docteur Konate et aussi à Grand Moulin. nous profitons aussi, on a aussi donc, panel ici, et on en a profité vraiment pour partager notre expérience, notre, modeste expérience, ce qui a été bien apprécié. maintenant, la particularité de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a eu euh, euh, la joie euh, de recevoir quand même le regroupement des éleveurs de la banlieue dirigé par le président, le docteur, docteur Nian. donc, nous avons une forte délégation, nous avons fait avec un grand, grand engouement sur le débat du début à la fin. et exprimer nous, nous avons public, nous avons fait exprimer nañ seen satisfaction par rapport ak euh, panel bi euh, loolu nag ñun euh, daf ñu jox ñu nit aussi une grande satisfaction parce que loolu loolu lañ si jublu woon jubluwaay bi moo nekkoon le modèle Galoya notre manière de faire bi nga xam ne permettre nañu ñu def résultat bi nit yi apprécier ñu partager ko ak nit yi te tey à travers panel alimentation bi def nañ ko

Euh, ak yeneen ak yeneen encore donc euh, lolu déjà am waxtaan nañ ci waxtan bu am solo bi nga xamni ni gëm naa ni éleveur bi suñu jógee fi euh, dem ci sen gëti yi changer doxalin. La bergerie des champions, le bélier la doum. Le berger la doum. Aïcha, la mère des champions. La ladoum d'exception. Abou li aju ci wàllu taar ak tamit lu ñuy wax aar bés yële di les journées porte ouverte de Galoya nekkoon nañ nag lu am am solo ci wàllu exposition bi nga xam ni amal nañ ko gannaaw ba ñu defee tablo xar yi nga xam ni ñoo di les moutons champions fësal nañ fay tamit nataalu melekaanu kër yi nga xam ni ñoo nekk foofee ca Galoya di dëkk boobee ca Fuuta te lu ci bari ci ñoom di ay néegu ñax lolé ngir gëna mëna mun a xëcc kumpa ki nga xam ne ñëwoon na bokku ci bis ñi ñëwoon nak ngir nemmeeku bés yile bokk na ci ña bayiko biti réew lu ci melni ni tubaab yile ak chinois yi nga xam ni ñëwoon nañ tamit xool exposition bi mbékté lañu am gannaaw ba nga xamante ni nag gis nañ benen xar kanam bu Sénégal rawatina yarum laadum fi ci réew mi. Eh ben, ce salon est, est très agréable, très joli, il y a de très beaux animaux exposés de très beaux tableaux des, euh, euh, des animaux, j'ai cru comprendre, qui avaient gagné des prix. Euh, donc c'est intéressant de, voir l'évolution de l'agriculture au Sénégal. Bah, je trouve qu'en vrai c'est beau de faire partager les animaux du pays aux gens et je trouve que aussi ça apporte un, comment dire, c'est ça, apporte la joie quand on voit des animaux, on a envie de les caresser, tout ça. C'est pour les événements familiaux, tout ça, pour amener la famille, c'est parfait. c'est parfait bah, Figurez-vous, quand on est arrivé, on s'est dit que c'était un mini salon de l'agriculture. Euh, donc c'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Et euh, non, c'est très chouette. Et en plus, venant. Euh, alors je ne travaille pas du tout dans milieu de l'agriculture, mais par contre, j'ai fait un lycée agricole. Et donc, ça nous a intéressé de, de venir voir, de passer voir l'exposition. Donc c'est plutôt bien fait. bi mu yar si en tout cas il est un passionné de l'élevage il est un passionné de l'élevage il vit l'élevage c'est dans son sang pour la l'avoir il faut parler de l'élevage toute sa discussion ça tourne autour de l'élevage quand il est au milieu de ses bêtes il est dans son élément vraiment c'est pour cela même sa petite fille, Aminata, je pense qu'elle a été contaminée par le sang. Elle aussi, elle ne vit que par l'élevage. Dès qu'elle est à la maison, tout le temps, elle est en bas, au niveau des bêtes, dans les boxes, en train de leur donner à manger, bien à euh, discuter avec tonton Adama ou Cher, comment évoluent les bêtes. Vraiment, c'est un milieu passionnant mais c'est un milieu difficile aussi. Quel que soit un programme qu'ils initient.. ils sont là, ils l'accompagnent. C'est l'occasion pour nous, toute la famille, les amis, de leur dire un grand merci. On a vu leur soutien, que ce soit moral, financier, tout ça, on l'a vu. yamul fofu moo di dañuy ànd rek tagg kii di Abou ndax taxawaayam ak cofeel gi mu am ci yarum laadum. boo nee boo nee mooy tëj na élevage bi ndax bergerie boo dugg ay sixième benn maam ñaari maam fa la jógee kon nag booy xool da naan Abou Kane mooy mooy nday élevage bi mooy nday élevage kon nag journée bi da koy yéex a def da ko war a def bu yàgg waaye nag fi mu ko defee am na solo ndax ñi ko defee nii invité éleveurs yi ñëw teew invité autorités yi ñëw teew. Ah, ñu gëna xamal ligéyam ah gëna won éleveur yi fu muy teg gën won éleveur fu ñuy tek seen tank kon loolu am na solo ah, bëggeen mu gëna a téyewaat élevage bi bëgg mu dajalaat éleveur yëpp éleveur yëpp mu dajalé leen waxtaan ak ñoom laaj leen luñ bëgg way laa mu wax leen mom nim bëgg doxalé ñu and ak mom doxal parce que mom njariñ la ci élevage bi waaw njariñ la ci élevage man da bo sañon mu dajewaat éleveur yëpp mu dajalé leen éleveur yëpp mu dajalé leen mu leen dajalé waxtaan ak ñoom boo ba sañoon mu def loolu moom. ku bëgg élevage rek képp ku bëgg a jur képp ko jur soxal tey sa xol sedd na te lii c'est un pas en avant euh, dina ñu motiver ñun ñi nga xam ne njabootam lañu wala ñun ñi nga xam ne ay ndawam lañu ñun ñi nga xam ne ay jarbaatam lañu nekk ci ginnaaw gis mu liggéey lu mel nii war nañu mën a booster à ce que suba gannaaw suba ñu boot ci ginnaawam ñu war a mën a def lu ëpp lu romb li macha allah tey xol yëpp bëri na ñëpp kontaan nañu man moom euh, bi ma koy dégg bi ma koy expliqué yaakaaru moon ni ampleur bi na toll fii te ku li ma wax sànq au début ku ñëw rek tey te bëgg lu baax ku ne saxal sedd man moom dama nekk koo xamante ne benn ndaw bu dugg ci élevage dugg ci yem ci moom mu tegoon ma ci axe boo xamante ne vraiment man aw ma fayam teg ci ma jël ko mu nekk sama référence nekk sama idole tey moom vraiment dama dama kontaan bi ma fi duggee moom beneen yëg-yëg laa doon gën a am ci élevage mu gën maa motiver aussi ba ma toog ma ne man lii nii mu def man en tant que koo xamante ne man idole laa ko jàppee war naa ko mën a réaliser moom bëgg naa daal nekk koo xamante ne moom fu mu teg tànkam teggi man ma teg fa sama tànk ci élevage euh, c'est un monument c'est un monument du de l'élevage Sénégal parce que euh, koo xamante ne kenn dootu ko présenté la même en dans la sous-région fa li mu fi def moom vraiment c'est c'est une chose extraordinaire te lii dafa baax euh, ñu wane ko nit ñi gën ko xam et mu nekk loo xamante ne nit ñi dañ ko dañ ko gën a dañ si gën a jàpp mu nekk loo xamante ne day doon exemple pour les éleveurs yi nga xamante ne ñu ngi doog a dugg ci élevage bi ak ñi nga xamante dañ ci euh, ciy nekk ëllëg pour ñu xam li si li ñu nekk li lan mooy origine bi ak fan la ñu war a jublu c'est vrai je crois pense que y pas un exemple mieux mieux mieux placé que Abou Kane pour pour pour illustrer loolu waaw Abou moom li ma koy lancer comme message mooy euh, dama naan fi mu teg tànkam foofu la waaw yu melni euh, mu koy gëna def euh, gëna sensibiliser éleveurs parce que li dafa am solo parce que xol journée porte ouverte bi xamna tay lu am solo la té li nak euh, dama koy ñaax mu gën am yenen journée yu bari dal ñu ñu bari luñ koy def parce que amna solo amna fu mu mën a élevage té élevage dafa nek loo xam facteur de développement la voilà li nak dafa am solo kon nak diko ci encourager journée bi réussir ak yenen journée wa président bu ñëpp ko wara sargal élevage élevage ñëpp ko war a sargal du seet du keneen ñëpp ko war a sargal si àdduna même ñi ñi ndaw dañ ko war di xëy ko jox ay alarba parce que peut être ni ñu nekk xale di ko gis si milieu élevage bi daf ciy gën a yokk jom gën ñoom mun am ñu am benn motivation am bëgg defi am bëgg yegg fenn fi te suñu nee mu neer suñu xar bopp di ko di ko jaay xaalis bu cher amaana moom bokk na si donc ñun ñëpp ku ko romb sax da nga yëkkati alarba jox ko ko donc loolu moom du set mais ñëpp la war lépp éleveur simple sax war nañu ko dara teg si loxam waaw juste pour wane ne gis da kontaan nga si moom tax dëgg si yàlla ñun ñëpp de ñun jeune ñëpp idole la si ñun. yëg-yëg bi ma ci am njaga mooy euh, vraiment di wax ne rek euh, élevage ku yokkul da ngaa wàññi mais ku xam président Abou Kane depuis ci départ am ba ci lii waruñoo mën a bett ñun éleveurs yi ñu xam Abou Kane waaw di ko ñaanal yàlla rek yéeneem ci élevage ak nebetam yàlla na ko yàlla suñu borom bi mottali te suñu borom bi yeggali ko te xam ni Abou wallahi limu bëggal képp kuy éleveur fi ci Sénégal buñ ko xamone ñun éleveur yi ci ginaawam la top jital ko baña a baña bañ a lenn mudul jital jiital abukan ban nga ko tay yow élevage laarum xar bo jël boko xolé ba ci biir mamam wala papam kër abu la jógee té loolu dafa nekk lu lu graw gis yow bi démé ba ci loolu mo jógee fi dem foire Tëngéej gis gaay exposé mo gis diw doomu diw sen baas diw doomu diw diw doomu diw ba dem ci abu gis mu def amélioration race locale ma xam ni abu mii am na feneen fu muy xoolee fu bokkul ak fu nit ñi di xoole moo tax ma ni après ministre de l'élevage bi du ñëw ci moom parce que loolu doonu nekkul loo xam ni lu lu simple la quoi parce que loolu dina baax ci jeunes yi pare mu ngi dimbali jeunes yi parce que jeunes yu bëri dañ doon am ay xaru tabaski mais dañ na am problème mu écoulement léegi yow tey boo yoree sa xar ba tabaski jot dootoo am problème vente da ngay dem si abu jaay ko mu yëge sa xaay jox la dara du ci manqué nga dem kooku mu ngi lay dimbali léegi ku mel noonu dañ ko war a jël xam nga def ko ministre de l' élevage kooku boobaa dafay baax ci éleveur yëpp élevage bi mun a avancé bu daal xam nga li mu jot ak li mu bëgg ci Sénégal yàlla defal ko ko daal xam nga parce que ci la ñuy gis suñu bopp ñun ñëpp ñu éleveurs yu ndaw yi ak yeneen éleveurs yi nga xam ne xam nga bëgg nañ mais xamuñu fu ñuy teg seen tànk en plus tamit di wax ñu koy ñu suivre abo ci ci wàllu alimentation xam nga tamit wala gestion yëpp parce que dalay permettre nga mën a xam yow nan ngay yoree say xar. dëgg-dëgg exposition bi bu ko gisee yëg-yëg bi ma njëkk a am euh, dama gën a yéeg sama bopp ma gën a am fit parce que euh, dafa nekk loo xam ne tey kenn xalaatuloon ne bi ñuy tabax musée bi wala grand théâtre koo ne woon tel 2023 tel mois danañ fi exposé ay mouton laadu ay mouton walaay éleveur nañ fi ñëw exposé seen i xar kooku wax dafa ne yow xanaa dangaa dof da nga ñëw yàq mais tey bu ñu toogee ba éleveur laa mi ñëw exposé seen xar yi fii ci musée bi moo yëg-yëg boobu rek foo natt ci mbégte kontaante vraiment weesu na ko di profité di gën a félicité président Abou Kane di ko ñaanal yàlla may ko gudd fan ak wér ak képp koo xam ne éleveur nga boole bépp doomu aadama ak mujj bu rafet mais mu nekk loo xam ne non seulement que ni mu exposé rafet na mais président Abou Kane

acci hammu mum acci fof ari ɗo henne gilanɗen hay goto lelaki hay goto danaki yimɓe fof nani ummiɓe ha galoyoɓeɓe kadi min ala jomdudumen yo allah yob mojjere aussi éleveur uji ɗi kamɓe fof kadi min yi darde mabɓe kamɓe fof ñande fof ɓe gara te c' est pas évident les jours ouvrable ɓe gacca ligguey mabɓe ɓe gara ɗo henne gilanɗen hay goto daraki hay goto joɗaki moni fof nani jaggue hen yo Allah yëpp mojjare muñ ko weetee rek il faut la main dans la main pour avancer. sponsor yi sax ñoom itamit kenn demul ñu des ndax ñoom itam rafetlu nañ bu baax lii di exposition bi fësal seen mbékk ci ni mu amee waaye itam di sant ak di gërëm ki nga xam ni moo ko taxawal di abukan ñoom sponsor yi nag seen ànd ak journée porte ouverte yu bergerie Galoya du fa yam ndax xam ne nañ ni at yi di ñëw daan ci gën a dugal seen loxo. Aboukan, au-delà d'être un jeune frère, est également membre de l'ANIPEL et que toutes les organisations que nous avons eu à faire euh, au, niveau des journées de l'élevage, etc., Aboukan a été tout le temps présent. Alors donc c'est tout à fait normal que l'ANIPEL puisse être là pour accompagner en cette euh, journée qui est pour nous euh, extrêmement importante. Vous savez, nous sommes très très contents et honoré de faire partie de ces euh, journées euh, portes ouvertes parce que c'est une occasion euh, d'inviter les gens à davantage s'intéresser à l'élevage qui est un pilier du développement. donc c'est une façon un peu d'inciter surtout les jeunes hein, qui aujourd'hui sont portés dans d'autres projets comme ce qu'on appelle le Barça ou le Barsac qui prennent des euh, encore, des embarcations de fortune qui meurent en mer ou en Méditerranée. Et ça, c'est une façon euh, de les appeler à travailler dans leur pays, à y rester, parce que les opportunités sont là. Donc Aboukam, ce qu'il a fait, c'est vraiment un exemple à suivre. Et surtout en ce qui concerne les jeunes, moi j'invite tous les jeunes à venir s'inspirer de ce modèle-là qui est un modèle de réussite vraiment et cela limiterait un peu ou bien aiderait même euh, à, comment on encore, lutter contre cette immigration-là, que j'appelle une immigration mortelle. Euh, depuis le début, sincèrement, tout se passe très bien. Je ne n'ai vu, L'organisation a été bien faite. Également, euh, les heures sont respectées. Panel les panel riche riche, en échange. Également, on a vu que les gens maintenant sont intéressés par l'élevage ici au Sénégal. Nous avons une passion pour l'élevage. Également, engagement pour nous le développement économique du Sénégal parce que nous avons fait, mais élevage contribuer massivement à l'économie du Sénégal donc le contentement euh, engagement humaine également innovation humaine. Nous ba des porte ouverte concernant l'exposition ici à la musée des civilisations noires c'est une première et pour ça on félicite Aboukan pour l'initiative euh, bi mu parce que c'est partie des leaders incontestables dans l'élevage ici au Sénégal donc loolu contentement bu maga a mag a mag la en tout cas grand Malé mi ngi koy bu baax a baax a baax a baax. bés bi nag bokk na tamit leneen loo xamante ni na ci solo loolu modi di fësal xar kanamu ñi nga xam ni nag ay champion lañu te sen tarikh yitteel na bu baax a baax yarum laadum fii ci Sénégal ba tax nag ñu leen ci doon sargal. ñun dañ ko war a sant bu baax a baax ci li nga xam ne bii moom la defal élevage suñ ko dénkee ci fukki at yi nga xam ne lañ ko dénk mu yor adam ginnaaw bi ko su bëggee joxe lenge yi liñ ci gis lépp mooy yokku tey élevage tey gis nañu ni mu toll actuellement moom mii da ciy am responsabilité bu rëy boo xam ne da ko ci def ci xam-xamam ci yaroon ci nangoo dimbali moo tax mu am lii may wax ni rek xale yi moom mii dafa wa doom moom dafa jox dafa tey exemple ci élevage référence bu rëy yàlla na ko yàlla may fanu gudd may ko wér tey si biir njabootam yi waxee lii ñun dañoo war a tàgg kan mooy am suñu mënoon def loolu danañ ko def mais dañuy def lu rek ni koy taggee mooy dañ ko sant ñaanal ko yàlla yow tey li mu nii li mu def lu rëy la pour bi mu ko defee tey lu rëy la pour ñun am na benn jéego bu rëy mu am ci am te moom mi moo ko def ah mais sant ko bu baax a baax ci li nga xam moom la def kon Abou ñu lay sant di la gërëm bu baax a baax ci turu mag yëpp

yàgg nañu di dem ci ay école waaye bàyyiwuñu suñu diine Aboubacry bii nag exemple la ci loolu ñun dañu fier ci li mu def parce que li mu def dafa topp ci ay tànku ay wayjuram ay maamam ñi fi nekkoon avant te ñëpp xam seen liggéey ci jëmale ci kanam réew mi ak Sénégal ak Afrique bi yëpp. ñoo ku taxaw wax. sa diggante ak sa aqullahi taala rek tax ci milieu élevage. <laughs> tey ñun ñii bu ñu nekkoon ci suñu kër surtout man man man exemple laay wax. wallaahi alhamdulilah la wax su ma mënee jaay mbote 2 million mën a jaay mbote 1 million 500 grâce à grand Abou Kam yi. ah oui damaa dem damaa dem këram maanaam yor lu néew. mu ne man Gopa yow su ma rakk nga dama lay jàppale jox ma benn xar bu ñuy wax petit ram di doomu grand ram wallaahi xasim aadama def ci ay jéego bañ jox ma ko xar moom tey yàlla barkeel na ko ba ma am ci titre foncier digg Ndakaaru kon nag dama bu baax a a baax a ko ñaanal yàlla am na ko xol yaa ko xam yàlla na la ko yàlla ah, ko waxee maa ngi maa ngi nuyu maa ko jëkk tuddee fii beneen bi topp mooy abu bu muy doon a commencé daf gën a nax rek ku nekk da doon jaar nax moo nekk nii war toujours nit ki jaay da ngay jaay bu baax sama kër tey jii barke tey dinaa ma xamal téye ko defar kii ku ginnaaw yàlla yow a ko a kii bu ma ko wax laa bëgg dëggal rek sama kër adduwaat la woon billaahi wallaahi bu neet ñee maa ko may njaboot nii dañuy toog nii si muy muy muy toog ku nekk ma dugg fa ma ñëw këram ba may ñëw këram indi sama euh, sama xar am sërër muy muy abu senior moom laa ko tuddee moom nii ma ñëw ba traité def ko moom sax moom yëngu ko sax maman ñoo dul foofu ndax kër gi sama kër la maa ngi moom maa ngi moom ñoo bokk benn dëkk carré amu kat. waaw ma tey bu naawee damay naaw ñoo bokk benn dëkk carré amu ñii. mu ne nit koo xamante ni wax dëgg yàlla sama kër dama ko defoon teel a dàqu mu def xaman laajte ñaanam jëri ma moom bu ko defoon day bañ tey ñu bëri dañ naan Europe muy mu ñëw Moussa Yada ñëpp ñoom nga jënd ñëpp mu abu am moo nekk ñu am ci àdduna abu kan mii ak bi loolu way ak ñeneen ak ñeneen parce que mooy séeréer bi fi nekk ndax bi booy séeréer ñëwee abukan dani ku am bërëbi ñëwal booy séeréer tëb ko loo ci am nga moom xam ni ci booy séeréer la jóge Moussa Yadd moo jëkk indi bërëbi wam booy séeréer tëb ko mu jur Nations Unies Moussa Yadd jaay ko 7 millions fii ci Sénégal abukan di tette élevage laadum di tette élevage laadum ba jël maxu sëy doomu première dame ak magistrat mu comme ko mboté 2 millions ci lo fait 200 000 mu digi éleveur bu nek jaay na fi 2 millions mboté 1 million 500 000 mboté lenen ak lenen kon donc abou en toute réalité c'est le roi de la bergerie il faut maintenir ce nom parole bi nak lañ lay les marques lima xam ci yow lepp buma ko doon bëgg fi di wax fi lay fanane sans vanité.

jaabe galle Farba Mbaye Lo ma yëg tey euh, mën naa ne dafa lu rëy la lu rëy la ndax mooy li ma la wax xam nga loo euh, boo xam ne dans vingt vingt ans vingt cinq ans yaa ngi ci bu tey ñu décorer la lii gis sa taxawaay ci li nga liggéey ci li sa liggéey loolu lu rëy la loo xam ne aussi euh, mënatuma ko maanaam mënatul dañ man waaw ndax vraiment dafa fort tey bésu fort la ci man mais ma ciy sant yàlla bu baax nag di ci sant sama waajur yi nga xam ne aussi vraiment ñun ñoo ñu teetal ci ñu bugg ñu bugg jur ndax bu lii aussi bu fekkoon diir bu ñu am ci élevage bu fekkoon bëgg-bëgg rek mën nañ dem defi leneen mais dafa bokk ci suñu deret moo tax tey aussi ñu dem ba lii fekk ñu Euh, je suis totalement satisfait euh, li ma yaakaar résultat yi am weesu na euh, très largement lima yakaron yaakaaroon donc wax fa deug yalla dumay dor xawona ti tuti euh tuuti bi mu commencé ñu démarré nii vraiment rafet na mais wax fa deug yalla euh nous, on l'a d'une manière extraordinaire. Et je suis satisfait de tout bord. Parce que, avant tout, nous avons euh, ma euh, Parce que nous d'abord revivre l'histoire euh, des bergers de Galaya. Et ça, on l'a fait d'une forte bonne manière avec euh, euh, les tableaux des moutons des anciens champions euh, suivi des plaquettes avec le pédigré, la généalogique et le texte qui a suivi. Euh, et faire plaquet plaquette de faire continuer suivre euh, éleveurs yi dañu continuer dessous parce que c'est quelque chose qui est là c'est de l'histoire quoi L'événement, moi vraiment exposé dans les aussi pour nous le pour nous visiter à nag yeeg sur le gâteau définir un panel non seulement profiter ainsi pour partager le modèle Galoya mais une euh, une aussi que sont les euh, minoteries avec le nutritionniste euh, les banquiers et les assureurs avec leurs cadres les vétérinaires les vétérinaires et tout ça nous avons à travers les panels donc les éleveurs sont venus en masse nous amna lo donc euh, té wax fa deug yalla on a eu de bons retours depuis le premier jour ba tout le monde est satisfait ñi fi ils sont satisfaits ñi fi ñi fi tamit di suivre affaire bi à distance ils sont entièrement satisfaits euh, les autorités nous nañu le ministre euh, affaire bi à travers cette affaire là ça il a fait sa première sortie projet du ministère ñu bari ñëw lu mené PDF ay Fonds Stap ah, euh, suñu xarit yi ñoo nañ éleveurs yi ma famille intégralement ñëw na euh, on pouvait pas espérer mieux et j'en ai profité vraiment pour euh, décorer ñi ma bëggoon décorer ñëpp ñi nga xam ne j'avais envie vraiment de faire quelque chose pour eux ñoo xam ne mënu ma leen may xaalis mënu ma leen may kër mënu ma leen dara li ma mënoon rek mooy sargal leen te j'en ai profité pour sargal leen ah ndax li ñu defal Galoya ndax li ñu defal élevage donc je ne peux être que satisfait euh, de remercier tout le monde, de remercier le ministre de l'élevage qui s'est déplacé avec euh, tout son staff, de remercier euh, le directeur du musée Amadi Bokoum qui m'a accueilli ici, de remercier Elage mon des mon bi nga xam et à travers lui je je remercie toute la presse aussi bien la presse audiovisuelle presse écrite presse en ligne les WhatsApp Euh, groupe whatsapp éleveurs yi ak yooyu yëpp ñëpp maa ngi leen di remercier di remercier éleveurs yi fi ñëwoon yëpp ah vraiment euh, ku lim jum mais vraiment euh, je suis inter je suis vraiment comblé ah di sant yàlla bu baax a baax a baax di ñaan yàlla mu mu bàyyi ñu fi ak wérgu yaram di jox rendez-vous ñëpp journée porte ouverte Galoya 2024 ci anam bu am solo bi nak ci lañu ñu tëjee bés yi di journée porte ouverte yu bergerie Galoya mu doon bés yu am am solo yo xamné nak occasion bu mag la won ngir ñëpp ñi nga xamante ne ñooy yëngatu ci Walum élevage rawatina yarum ladum ñu leen di jox rendez-vous dewen ak jamm ngir amal ñaarelu édition yu journée porte ouverte yu bergerie Galoya la maison